li def tamit ci xeetu mbay def na fi ñebe def na fi mboq def na fi gerté def na fi carnat sucre tamit don ko def ay test en même temps tamit damay defal ay pépinière ak lépp tout di jaay waaw waaw ak production bi moy am dam daw amon na fi presque ay 6 tonnes de maïs waaw te fafe presque 4 ans mu ngi ni bon limay wax ni du ay inventaire village bi yépp sangal kam mu nañ mako sédal chaque année damay damay exploité ferme bi fini waaw daw mbokk fi ngeen gis ni yépp ki bi aubergine bi nekkoon lepp ki la won mboq la woon mboq laa ko defoon ren si la comme amoon naa foofu tuuti intrant si laa commencé waat di def di def ay culture ay commencé dugg si culture maraîchère bi nit bu ñu la jiitalee teg la ci réew ne la defal lii toog jox la ay responsabilité da nga koy jox ba mu mat sëkk vraiment li ñuy def nii di encadre di encadrer ndaw ñi man maa ngi koy rafetlu bu baax a baax tamit tamit di si jox man jàpp naa tey man seen seen seen biir laa bokk tey waaw leen wax tamit bis bu amee tamit ñoo xamantene war nañ leen former ci côté pratique man je suis là bu ñu ñëw dina leen former dinaa leen ko baxé état Sénégal dafa comprendre depuis un moment depuis longtemps que ñëpp ñi nga xamantene ne euh, ay ndaw la ñu mënuñu nekk ci ay bureau de liguey donc euh, état du Sénégal jël ay disposition pour que ndaw yi nga xamantene euh mar nañ leen mëna accompagner ñu accompagner leen pour ñu mëna défar seen bop def seen activité bop té activité yooyu mbay ci la bokk. parce que nag mbay moo suñu cosaan ba pare mo mbay su mbay mooy suñu avenir parce que avenir u réew mi mbay la donc euh, su état bi defee euh, xaalis bu bari bu toll nii ci ferme bi nga xamante ne euh, loo xalaat rek am na fi am na am na élevage poulet ndam yarum yarum ginaar am na yarum nag am na yaru jën am na aussi maraîchage maanaam maanaam mbay mu nekk loo xamante ne euh, dispositif boo xam ne dafa mat dafa mot te ku bëgg liggéey soo ñëwee fii dinañ la accompagner encadrer la ba nga mën a liggéey ba mën ci jëriñu ba mu mën ci dund décemment ci dëkk bi. soo xoolee ferme yëpp suñ ko xaymaa à peu quatre cent millions su état du Sénégal à côté de li muy def yëpp ci ay financement ak yooyu ak yooyu su jëlee xaalis bu toll noonu defal ndaw yi euh, diwaan yu mel nii. dañu yaakaar ni ndaw yi war nañu gën a far farlu ñëw jël mbir mi liggéey ko mën ci jariñu te ñu ñaan jeunes yi ñu leen di woo parce que nag bu ñu naxantee jeune su jàngul école ba yegg formé wul amul métier soo béyul bëggoo liggéey loolu moo am parce que nag il faut nit ki foog mu def dara nit mënoo nekk ci dëkk bi rek nga toog ne état état état toog bougeo defoo dara état su defee ay dispositif nag dañuy xaar ndaw ñu ñëw ci dispositif yooyu surtout ay investissement yu bari yu bari yoo xam dañ ko def jëlee ko ci koom-koomu état defal leen ko ngeen war a ñëw nag nekk ci liggéey ci parce que su ngeen ci liggéeyee ngeen mel ni Cissé bi mën ngeen mën ci dund.